asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi toogaat nañ ci jataay boo xam ne jataayu fàttaliku la waaye jataayu sant yàlla la ngir mu jëm ci woote liggéey bu am solo ba nga xam ne moo nekk ca daaray Lagan te sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke di jëwriñu kër sëriñ Saliou di ko woote at mu jot moo tax ñu toog fii ci kër sëriñ Saliou Mbacke xaadimu rasul di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool dolli ak wéram sëriñ bi yëkkati kàddu yi cant jëme ko ci mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gépp waaye jëme ko ci mbooleem bokk yi ak taalibe yi ak xarit yi ci seen taxawaay yu rafet yi nga xam ne ñoo ngi koy taxaw di ko ànd ak moom ci li weesu lépp di ñaan suñu borom fayante ci ak ñoom waaye mu di leen tàllalaat loxo nag ci liggéey bi nga xam ne moom lañ dëgmal mu jëm ci góobi tooli saaño ya nekk ca daaray Lagan waaye xam ngeen ne nag ren ji da koo dëppale ak jullik jumaa joo xam ne jumaa jam fa doon def dafa noppi mu bëgg ñu julli ko ajuma kon yaari woote yëpp sëriñ baa ngi koy woote te loolu mooy wooteeb sunu borom subhaanahu wa taala mooy wooteeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wooteeb sëriñ Tuubaa xaadimu rasul alxibaadatu wal xidma muy jaamu yàlla ak liggéey loolu moo tax sëriñ bi nee mi ngi ci njëkk a nag jëwriñ ji nga xam ne ko tudd daara ja tudd ko di alaaji Samiyal Sarr di jëwriñu daara ja waaye doonoon jëwriñu liggéey ba sëriñ baa ngi ko ciy soññi di ci soññi mbooleem ay xaritam yëpp ak ay soppeem waaye nag di jiital ci woote bi sëriñ Abdoulatif Jenn mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëriñ Issa Jenn ak mbooleem njabootu Cheikh Issa Jenn gépp tàmbalee ko ci sëriñ Sidi Naar mi xalifam sëriñ Naar waaye jaar ci doomam nag di taalibeem di jarbaatam di sëriñ Yuusu ak mbooleem ñamu bokkal kër gi ñëpp di ko yëgal sëriñ Cheikh Mbacke ak mboolem njabootuk sëriñ Modou Dieng sëriñ basiru Mbacke moom sëriñ Abibou sëriñ Bassirou Mbacke moom Cheikh Mahamadul Muntaxa ca Mbul serign fallu Mbacke ca Malka sëriñ Modou Jenn moom sëriñ Naar Jenn sëriñ Abdoul Khadir Dia moom Alhaji sëriñ Dia ak waa Njàpp Ndal ak waa Daaru Nahim gépp sëriñ Modou sek Kër Ñang sëriñ Alhaji Moustapha Seck sëriñ Seydina Aliou Seck sëriñ Cheikh Mbacke Seck sëriñ Babacar Seck sëriñ Cheikh Darame ak sëriñ Darame Caaxu ak Bayda sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Mouhamadou Khayri sëriñ Fallou Guèye sanc da sëriñ Fallou Tine sanc Daaru Salaam sëriñ Cheikh Modou Fall Baye Fall sëriñ Khadim Tine Bawal sëriñ Djili Touré Mourid Sadikh RTS sëriñ Djili Lo Kër Ñang sëriñ Khadim Diouf ak kër sëriñ waa kër sëriñ Modou Boof sëriñ fallu Guèye sëriñ Fallou Kan Tewru sëriñ Souley Guèye Sajaratu sëriñ Bàcci Diop Malka sëriñ fallu Sarr Kortiel sëriñ Ousmane Loum Kortiel Serigne Moustapha Guèye Daaru Taniful ak Serigne Massayer Ndiaye représentant xalif Zal de Mouride ca di ko yëgalit njabootuk Serigne Abdou Diongu tey ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu dolli ak njëggal ak yërmande ci Serigne Abdou Diongu. Daayira Serigne Salihu Bernde njiital Serigne Moussa mbake Serigne Abdou Kontey Lagan Serigne Babacar Ndiaye Pastef Serigne Modou Ndiaye Loum ñoom rek Gossas Serigne Modou Diagne Lo ñoom rek Gossas ak Serigne Moustapha Lo Serigne Amdi Fall Cikki Serigne Moustapha Lo Cikki Serigne Mourtala Ndoy Ndoyen Serigne Bàcc Busa Param ak wa daayira Masalikul Jinaan Serigne Cheikh Sarr Ndoka Sarr Serigne Khadim Sarr Ndoka Lamine Ndaw ak Abdou Khadir Sène ak waa Ndoka Sidi Daouda Ngom ak waa Yal Gépp Serigne Saliou Diop ak waa Mbour ak li ko wër Serigne Boubacar Ñing ak njabootu Baye Mass Ñing sëriñ Assirou Wade ak waa Kaolack sëriñ Ibrahima ngo Buqatul Mubarak sëriñ Lamine Diallo Touba Parcelles ak waa Dakar gépp sëriñ Talla Wade Dakar benn baraak sëriñ Ousseynou Kane Dakar Alhaji Wilane Gatou Malick ak li ko wër sëriñ Abdoulahi Fall ak Ousseynou Sakho Thiès ak li wër sëriñ Maysa Gueye ak Aliou Gueye ak waa Daayira Anen sëriñ Jamme An Mbodiène ak waa Daayira ba Alhaji Saliou Sène Bambey sëriñ Thierno Dione ak sëriñ basiru Sarr Diourbel soxna Ndey Jaw Njaañ daayira téyeri Touba ci njiitul sëriñ Bay Sarr ak sëriñ Baara Ndiaye daayira ouvrier yi ci njiitul sëriñ Saasiñ ak sëriñ Mor daayira soppe Serigne Saliou yëpp ci njiitul Serigne Ibrahima Sarr Ibrahima Sène jekk laxasaay di ci soññ it mbooleem transporteurs yi nga xam ne daanañ ci jàpp di ji Alhaji Mbaye Touré Touba Alhaji Abdoulahat Ndiaye Dakar Serigne Cheikh Gueye Mbana Serigne Xabaan Aan campement Ngexoox Serigne Bara Seck Kaolack Serigne Abdoulahi Niang Kaolack ak mbooleem ñi nga xam ne daanañ ci jàpp yëpp mbooleem nag képp koo xam ne soxla nga oto Serigne Abdou Touré nee na boo mënee jokkoo moom balaa àjjuma nga woote ci 77 456 24 76 wala 76 125 31 45 sëriñ baa ngi woo ñëpp di ci séntu ñëpp di ñaan ku fa teew yàlla na yàlla faj sa aajo barkeb Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.